Gueye Téranga TV GT TV soo leen bëggee am waxtaanu alaaji Moustapha Gueye mbaa tafsir alxuraanam wala boog waxtaanu oustaz Abdou Sahid Gueye wala mbooleem oustaz yi nekk biir Sénégal abonné leen ci TV GT TV moo leen ramadan mubarak aouzu billahi min allahuma laka alhamdu ala nicmati alislaami wal iman wa laka alhamdu an jacaltana min ummati sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh mbokki jullit yi mbokki ñi teewlu ci waxtu wi xanaa ñu bëggoon leen fàttaliwaat rekk na leen koor faratala la suñ borom subhaanahu wa moo ko farataal ci jaam yi comme ni nga xamee ne noonu la ko farataale woon ci xeet yi ñu jiitu ñu jàpp ne it ne benn ponk la ci ponki lislaam yi juróom waxtu woo ko màbbee mooy waxtu woo xamee ne ñàkk nga woor ci sa tayeefu bakkan bu boobaa na nga xamee ne lislaam màbb na sa kaw ndax benn ci ponki lislaam yi ko weddi rekk yow sa lislaam dañ koy xoolaat dëkk daal boo fu bëggee bokk bëgg am nationalité di woyoo dëkk boobu daa fekk nga yor seen identité waaye foo amul identité bëgg faa bokk dëgg-dëgg loolu du sotti te identité lislaam ginnaaw bi nga seedee baat yi wax ne yàlla mooy yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaamam la waaye yonentam la taxawal julli joxe azaka boo ko mënee woor weeru koor ak xaji màkka yii ñoom ñooy ponk yi nga xamee ne moom mooy ponki lislaam mbokk yi ñu bàyyi xel ni lislaam kenn du ko jaamu ci tatone ay texte la yoo xamee ne suñ borom bi subhanahu wa taala moo ko bind tracé ko yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw leeralal ñu ko kenn ku nekk ci ñun na bàyyi xel ne bi mu ñëw ci àddina andiwaalewul dara te buy demit du yóbbu dara lu dul jëfam yàlla na fekk ne jëf jooju nekk lu baax bu dul loolu rekk boromam su ko yërëmul daa ko dugal safara mbokk yi koor fekk nañu fi ren xamuñ ndax dinañu fekk déwén na leen profité suñ kemtu lay kàttan jaamu ci yàlla lu ñu mën ndax amul sikk guddik laylatul xadr yi ci la suñu borom subhanahu wa taala di bind xaaj bi nga xamee ne moo jëm déwén ci lay daal di tempone tempo list ñi nga xamee ne ñooy jëm déwén yàlla nañu ci yàlla boole boole ci mboole mu jullit mbokk yi tey nag ñu bëggoon waxtaan ak yeen ci lenn ci yi nga xamee ne dagan na nit ki def ko ci koor te kooram du yàqu moom la ci jiital mooy nit ki mun naa sangu muy ndox mu sedd muy ndox mu tàng sangu daal bokkul ci yi nga xamee ne dafay daal di yàq koor xanaa ñu bañ ko def sangu cekkee nag ñëween rek ñaari minute yu nekk rek ñu dugg ci toilette di wax ne dañuy sangu fekk dañuy naan ndox wa ala kulli xaalin daal sangu moom du yàq koor naka noonu nit jël ndox daal di sotti ci boppam ndax tàngaay wu metti wala tarug mar mu jël ndox sotti ci boppam loolu dara nekku ci soo demee ci abu daawuda ak ahmad ñoom ñu ngi nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sabba ala rasihi lma fi yowmin kaana shadid al xarri li shiddati atashi ñu ne benn bis daal yonent bi koor gi tàngoon na jër climat bi tàng yonent bi mar mu daal di jël nag ndox daal di sotti ci boppam loolu boo demee ci abu daawda noonu la ko nettale naka noonu tusngalu bokkul ci li nga xamee ne dafa yàq koor naka noonu nit ki bu wànnanta mu jël tuufaay tuufu ay bëtam loolu tam bokkul ci li nga xamee ni dafay daal di yàq koor wala sax mu jël euh, crayon wala seen yooyu nga xam ne jigéen dañ koy def ci seen bët yi mu daal di koy def ngir yokk taaram yooyu dara nekku ci bu dee ci weeru koor la xam naa damay doxee foofu rek pour wax la ne la même makiyage nit ki dem rosa wu pastel yooyu yëpp yàqul li nga xamee ne moom mooy koor waaye daal fàttali woon naa la démb ne la lii di parfum moom dañ koo sip ci weeru koor bëccëgu weeru koor daal sopp ñu nit ki di parfum wu waaye nag dem crayon nag maquillage loolu yàqu ko naka noonu mbokk yi nit ki su fekkee ne dafa dagg mu dal di jël alkool daal di koy def ci góom boobu wala foofu dagg loolu tam bokkul ci li nga xam ne dafay yàq koor su fekkee daal faju la ci jublu waxuñ nag nit ku ko def nag pour jublu ci nag lekk walla naan waaye daal euh, li di alcool ak yu mel ni moom nit ki daal di dagg daal di koy def loolu yàqul koor naka noonu soccu yàqul koor moo xam socc bu tooy la walla socc bu wow la soo demee ci ngeeru imaam Shafii ak imaam Ahmad ñoom dañuy wax ni ginnaaw lii di tusubaar moom dañuy si socc nit daal mën na socc ba jullee fajar ba fi muy jullee tusubaar waaye ginnaaw bi mu jullee tusubaar daal moom soppatuñu pour mu socc loolu nag ci ngiru imaam Shafii la walla ci imaam Abu Hanifa waaye boo demee ci imaam Malik moom mi nga xamee ne senegaal ci lañuy ñuy attewoo wala Sénégal nee nañu ci lañuy atewoo attewoo ci ngir imaam Malik moom dàquñu benn yoon soccu ci biir weeru koor moo xam laataatu subaar la moo xam gënnaaw subaar la ñoom dàquñ ko benn yoon ñoom ne nañ daal socc ci weeru koor loolu lu baax la waaye nag su fekkee nag socc bu tooy la ñu ne nag bu boobaa loolu dañ ko sib kon nag ci ngir imaam Malik nit ki daal di socc ci weeru koor bu dee socc bu wow la dagan na toute la journée bu dee nag socc bu tooy la loolu dañ ko daldi di sib mbokk yi lii leen la woon li ñëwoon nañ ko fàttali que doomi aadama bi daal bu ko defee loolu yàqul kooram naka noonu nit ki bu daggee ay weewam ci weeru koor loolu tam daggul li nga xam ne moom mooy koor gi donte gën sax dafa jàpp woon tusubaar laata tàkkusaan di jot mu dagg ay weewam ci diggante bi njàppam sax tojul waxuma nag ak weeru koor nag noonu su fekkee ne dafa jàpp dem julli tusubaar balaa tàkkusaan di jot mu dem ci coiffeur bi daal di dagg tuuti ci karawam dal di defaraat boppam loolu yàqul sax njàpp li waxuma ak muy yàq li nga xam ne moom mooy koor gi kon daal dagg ay we naka noonu wàññi sa karaw loolu bokkul ci li nga xame ne dafay yàq koor kon mbokk yi lii lu tuuti la woon rek liñ ne woon nañ ko fàttali wante ak yéen ci weeru koor di ñaan suñu borom subhaanahu wa nangul ñu waaye mu nangul leen yàlla boole ñu defal ñun ñëpp nag jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxira liñ jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla nañu ko buur bi subhaanahu wa taala nangul allahuma salli ala seydina muhammadin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.